I still do some uh, exercise. soo so tomorrow. So I may operation because operation be man I have operation nekkul could bi better way because I have uh, fibro which is is common si Gambian African and Asian country you better dañ am fibro so after that, three to four months gonna start the train and then the massage above. and when you go to six months up war nga gonna mun a little bit heavy training up because load of laa dimbale waaye nekkul ne nit ñi ñu am doom rek ah, comme like ah, nu ma ko dee wee nekkul ñu am doom rek ñoo dee am wéet léegi comme nit ñi yow jamono daf dee dox so people body also daf dee dox léegi soo ko seetloo people will stress then they am weight the first time so stressé dang dee wow danga you ñu ne soo suñ làppee sax ñu ne xelaat moo leen làppaloo waaye léegi stress is stressed, definitely your weight it you because of stress you can put on weight stress makes you get weight and then you know as a BNB, I don't know what family plan they use sorry waaye dañoo wax worried, Gambia their family plan when they use is really bad because most of suñ sisters say, eh, same body be is family planning bu bi ak mbaga en tant que ñu ngi so that play parts a lot family planning I don't know whether pill la my index injection la I don't know but it play a part a lot si gars yi beneen bi mooy doom pour am yaram not bi it give them as well du leen dee jox taat bi mbaga bi biir bi ak lex te yooyu def and then you train because something loo xam mungye la up sa is is hard because jigéen yi duñ train that train boo continuously train yi boo xam ne dina hard is is gonna be a problem te ñu bari is doom la ak family planning moo tax ñu bari ñu na maa train maa ngi train waaye gisuma dara because those pills o injection or I don't know what luñ dee naan loolu mooy mooy mooy main of them. ok. Mm. Ah, tey sooy advice. sa mm. you know moromi jigéen ñi not even jigéen ñi rek góor yi sax because loo xam ne rek fitness la. atal mm. su ñëwee fitness wér gu yaram la. Mm-hmm. Ah, comme sooy advice tey ban façon advice nga jox su ñëwee si wàllum fitness ak lekka yi lu ñëw lekk. um, train la be pare wàññi because uh, lu lu sa morom wane li bana rek yotam tam nga boo ko because sometimes you ne eh, nanal tv nanal naanal garab bi baax na comme lay nen ok yaa ngeen naan loo xam ne sa biir bi mu daw 24 hours yaa ngi dem si kama bi kama bi obviously dangaa lose weight because you dehydrate you dehydrate yourself so fonga la on that day fonga lose because of that and then imaginal nga def loolu noonu yooyu you dehydrating yourself so yow nga ne da nga lose weight you don't lose weight because of yaa ngi def loo xam ne mu laa drain so obviously doo mun ngaa cleanse sa yaram bi waaye you need to beneen bi mooy lu ñu gën a disturb disturb disturb muy góor bi muy jigéen bi muy sukur du maalo du mburu but sukur because sukur bu nuñ ko dee lekkee is too much suñ tea, chagri, whatever Gambian Belum they use. so sukur, especially when it comes to beer. The fat bum la day just a beer because biir bi dafa am ñetti part which is the the top the middle and the lower mooy lower bi because lower boobu foofu la diet sa kaw fii ak si digga bi mu nga ko train mu jeex it's fine yooyu am na yooyu ko train mu jeex waaye si ron bi sa naxa bi sooy train pour foofu toj foo nga luus lu ñoo ooyee foog nga def diet te foofu la sukur ñëwee soo sukur buñ dee lekka dafa bari torop soo tey soo ko bàyyi woon tey léegi exemple comme yow nga ne ok man suma biir kii fii moo rëy waaye léegi man damaa bàyyi two months lekkuma sukur du ataaya du tii du dara duma fa def sukkur and you see how sa body bi di format including even your teeth because of sukur bi is too much ba pare soo calculate looy use sa sukur yëpp everything looy lekk dafa am sukur naturally mhm. everything mu yaapa jën loo xelaat vegetable fruits dafa am sukur maalo everything dañ am sukur naturally mhm. so sukur bi lay advice pour nit ñi wàññi ko ak lu munte doon foo ko munte def beneen bi mooy mbuuru <laughs> faana faana yi mbuuru rek lay bëgga mbuuru muru is the next one you ko you can eat muru because man maa ngi lekk waaye dama def slice of bread o muru you can eat muru waaye danga ko war a wàññi ba pare dafa am time boo xam so soo dara because of sa diet activities rek daf they mun a bon loolu waaye dafa depend how many calorie and carb nga lekk at that moment mooy time bu ñu ooyee bëccëg ba all the way to three four o'clock dafa depend sa activities even soo demutee si jiim am na noo mun a lekkee lu em lu ndaw calorie si ndaw yooyu mun naa daay because yaa ngi dem yaa ngi move sa activité si because yaa ngi move all of those steps count waaye soo ñëwee ba six seven eight because body bi even soo nelawutee dafa am time boo xam ne body bi dafa am pour relax and then yow time boobu nga bugal nga bëgg bugal sa boppa yàlla bul am super kanja bu tànga nga bëgg ko lekka eight o'clock si guddi reer o oh, benn ci nga bugg a lekk loolu eight o'clock si guddi teg si sa ndox jàkkaarloo nag nag nag nag rek TV nag di seetaan benn law léegi yow kañ la loolu di bon it doesn't gonna digest ba pare du bon sa métadix bi dafa gën a high because by that time yow sa boppam maybe yow yaa ngi ne man maa ngi wekk body bi dafa body dafa am time bu moo relax especially yow soo miinalee sa body bi oh ten o'clock yaa ngi tëdda even nelawuloo ten o'clock su jotee rek most of your body is gone because danga ko ko miinal already léegi yow ten o'clock boobu nga dem lekka benn cin o super and everything da nga bëgg a lose weight doo mun a lose weight mbaa afra gambie te afra gambie bi moo gën a woos because afra boobu just dama bëgg a nit yi ko rek tuuti rek ba jënd lekkal leeray nga bàyyi tuuti rek nga nga nga def ko seen mbuus namba seen kayit then you wake up in the morning and open that afra fat bi is more than the meat so a lot of yaa ngi ko lekk after clock, ah your body is already excess and tired nga dóor si loolu dóor si ñaari kook nga tëdda beneen bi mooy fisi drink lu Gambien si gën a bugg a bari bugg fisi drink coke fanta sprite whatever boobu tamit beneen drink boo xam ne la daf dee bool down and it makes you lazy and also sukurmi is more any drink energy drink is the worst sport drink you fana drink bu gën gonna take a ndox is the best but apart from that anything they make there is sugar not buy ko but li but hamal kañ la ak noko nani? Doko buy, but limit ko comme exemple tey yow nga neen ah man de suma biir bi jabar bi mbaa jaxa bi mi dem bugul biir limite ko ba nga gis ne am nga ko and then do it occasionally not every day comme nit ñi ñoo jëlee am na ñoo xam ne de mënuñoo toog te naanuñ kooku am nañ góor yoo xam ne mënuñoo toog naanuñ energy drink lu ñoo def foog ñu you, mu seen mindset bi ne energy drink moo tax ñu am energy energy drink moo tax ñu def so they always consciously use it te baaxut not in your body not in your teeth te ñu ñoo xam ne ne time bu ñu i Gambie amuñ good dental You correct te baaxul health so loolu man lu maa njëkkaawa mu wàññi mooy sukkur because soo calculé tey léegi Gambia right now ah, diabetes ak high blood is too much te nekkul ne xale yi rek mag yi rek ñoo ko di am xale yi is more than demand so late a a lekka is good teel lekka reetam teel la añ ba pare Gambia am na so many things suñu mën a lekka ba pare beneen bi advice bi mooy jigéen ñi suñ tooga yuñ dee tooga dañ ko dee baxal ba ñu turan si yëpp dem muy jën muy yàppa all of them have water nga war a tooga di nga gis kuy tooga soos three hours mu ngi tooga soos three hours mu ngi baxal rek di baxal ñaambi yee pataat yi luy war a am yëpp ndox bi yóbbu na ko nutrients boobu noonu jeex na si biir ndox bi yow doo xam loolu looy lekk yow daal na nooy rek nga isi ko te loolu yëpp dafa am lu moo def ñu ci seen yaram yi waaye baxal bi dafa bari fry bi dafa bari dañoo fry, fry, fry, fry. so all of those things nekkut exercise la waaye sooy def exercise tamit te compté wu loolu loolu yëpp ba tey na because exercise dafa many pillar all of them have to join sa body bi noo ko di relax dafa is very important you need to rest da nga nit pour it healthy suñ ne healthy du lu seer waaye lu healthy and then da nga need pour exercise all of them go to you su fekkee ne exercise lekk loolu healthy you are not relaxing your body you don't see the no no doo gis benefit so all of them are included so lu ñu advice sister si rek ba pare nii put pour dem gym pour exercise you can do lu ñu ooyee physical body exercise body weight all a body We you can do a salt sa état gambe ñëpp a bi am état mun ngaa sa état bi mun ngaa dem si pa si si feel bi mun dem si beach bi because gars yi dañ like Sunday beach ah dem Sunday bi su fekkee da nga am family do some defal some challenges ak sa sa domi do challenges jekara a jabari Sunday ah, ngeen ngeen ngeen toog foofu noonu jëkkër bi ne tey dina def squat ma def squat dem rahas bo lu <laughs> gori yi Gambie di bañ dina balete bale holy oo do some challenges hmm. ok on a lap of bi ak yaay bi yëpp dem si fil bi ngeen ngeen def race ak doom yi everybody oh des hmm. you know ku jël gannaaw yaa yaa yaay defar reer oo oh, yaay def li it's very nice hmm. loolu de xam naa de boobu xanaa Bo. yu ne ñu ne góor yu ne ay do. waaye <laughs> soo ko defee xam nga musiba am ñooñu doom mentality ok on fu ma bëgg rek ñu fu mooy nekk last eh, thing lu ma xam ne naa ko laajte. ndax yow because dañ lay gis everything is fitness. From yu body. That plan like ay nga online ngay am you know di leen lead to training yeah that's what I do I do training live pour you join and and and motivate them that's my specific day for Hamne. ne uh, bés bii nii su do the the. Oh, before my am doom dama ko doon def every dama ko whole of the week I come later, i am doom and then I do it next week uh, week based on. Let me divide on my household su nekkee suma gars yi den dem si suba and then I will do it in the afternoon Manko don't study today but I get promoted on on last month <laughs> so obviously I get promoted yeah thank you so I got promoted and then i am course bu because expert woman ma get this promotion after some maternity leave because I'm still training to come back up so promotion when you and then foog def course because you have the course window open to one year even though i am done, I can have it extend why I'm not that type of person I just wanna take it out of the road, they've, they've caused me and move on. So Lola focus. I don't have training life. I might have Monday to Friday, like this week coming. Then I have Monday to Friday because my guy carry morning lene. So when they come, so then I have training. Yeah, and then and in the future gym in Gambia. Yeah, and then in the future, then you will be gym in Gambia and see how it goes. It's my yearly service. No, no, because when I do my training it's both <laughs> my training bi go, góor go góor jigéen plus including góor everybody because I do wait sometime ba I dama dee try tam to watch góor yi tamit because soo set loss in Boise, they focus more more si equipment. and that equipment doesn't raise your heart up. ba tey dafa mel ni yow it yaa jigéen yu train yu yes because you pump in your muscles so soo gisee sax ngay train di ekkati wëñi diis yi the bañ no okay because of lu nga never this. So soo ekkatee do this, obviously soo nooki bi never stop Why tey that have nothing to do with running that nothing to do So when a high intense interval just your body weight either nga do, dow oo nga def yeneen weight yeneen yeneen exercise You xam ne your whole body ak kuy def gym soo you tey kuy def ay yéena enu enu enu nga isi ko pour def physical training hmm, so moto dina moom mm-hmm. What is the Well, because of so then later me I mean then there were boys that I come like you can do the weight while it's a week bit trial bohamne you just do body weight and do other physical training. Because lot and like they dimbal is hard bit, and then they don't let dimbal time some muscles because like so they make at the end when any when any when they make some muscles look tense as well somebody but def des tense then di mën a am yenn tissue yoo xam ne léeg-léeg nga gis boys si di jàmbat oh but su ma dégg yëkkatee dara because those ones are soft tissue mooy sa foo xam ne dafa am flex bu baax sometimes nga def dara rek nga gis muy pain waaye doo xam fan la foo nga move ko mu pain waaye without moving it doo ko xam fu mu pain mun loo wane fii la foo nga move sa yaram ba pare mun a laal ne fii la so because all of those things dang daa dang sa muscles si dañ dee tense so am na yoo xam ne sometimes daf dee baax nga dem def sa daw or jog or other stuff other physical training boo xam ne is just body weight rather than just uh, equipment but a ñun more dinañ bi ko dañ ma dañ ma alte ma tëreen rëy <laughs> bi rëyut <laughs> mu dem de bi mu dem dama daan élevé ma bi mu ne ñëw eh, ba pare different tamit kuy hmm. def kuy indi ak kuy def physical training they are two dafa different so hmm. so anyway, time will come it go Why? Hmm. when you do physical training the fast stay longer so it helps. Mm, it helps a lot. That's very true. Yeah. Uh, like, uh, honey, like, um uh, nekk nii moom foog naa lu ñu war a discuss mënuñoo discuss yëpp am na foo xam ne dama ko bàyyi mooy sayti soldaar yi moom suñ buggee wax yëpp moom du baax. sayti soldaar is just that ne let them help them out waaye beneen side bi ma bëggoon immigration yi am na koo xam ne foog mu immigration ok and this is a message to koo xam you are working on the passport size, side me nañ fàttaliku ne there is a lot of citizens Gambian ñu New mm-hmm. ñu demee si yooni a lot of them mm-hmm. and then new. There will come a time they need i am kayiti Gambia and when it am kayiti Gambia come on. i am a service woman and I don't want people one de come comme jigi see ah, any site Gambia they are crop but soo ko seetloo Mhm. nañ ko ne ñooñu ay citizen yu tukki lañ mhm. te de need pour am seen kayit yi ba danga gis ne si time bi jotee pour ñu am seen kayit yi mhm. dañ am pour fay moo an moo pour am da kayit doo fay passeport bi rek kese di nga dugg gaay ñuy fay passeport bi dina la fayloo fayloo loo xam ne doo am sa passeport every day ñu ne machine bi yàqu na lii bi nii na lii dem na fii lii dugg na fii te yow kooku mu ngi Europe yaakaar kayit boobu te yéen yéen a leen war a dimbali because ñoom they are citizen de they not there waaye am neen right pour am dat kayit pour mun a ñëw pour mun a am seen yu like EU passport bi or whatever that passport na naka la buñ dee am léegi biometric passport bi waaye su nekkee ne ñooñu ñu ngi awee bëgg a passeport boobu and yéen ngeen bëgg a jël passeport boobu di ko fayee ko ay thousand and then still now kooku sax du jot passport am bi I think ne because a platform is a big platform so then nit ñi dañ war a hear of it and then most of them foog now man am na ko ma xam kooku is not a like is not a like du du ko ndaw so fu nekkee ne yow the seniors high ranking yi ñoo dee ñooy tappale nit ñi si loolu kon ñun ndaw yi ñoom lu ñuy def. Ah, lii dinaa ko si yokk ah. dama ne dama promise kay ne du ma du wax si ñoom. déedéet waaye foog ni wax si ñoom because nañ calculate ñu tukki. I would say Gambia so that means I'm a citizen of the Gambia. Mm-hmm. even though right now citizen yi fii la maa ngi liggéeyal fii waaye tey su ma solee see uniforme bi sax ma génn dem place su ma ñooñu laaj oh naka foo dëkk and waaye foo jógee damaa ne Gambia. soo suñ ñëwee ñu xam ne dëkk yëpp even though wowuñ ne dëkk yi order dëkk yi amuñu korab waaye comme nga war a ñëw si ñun mu nekk plain in blanc dafa dafa dafa dafa dafa ruslu ba pare nga war a jël su nekkee ne yow nga war a jël xaalis nit moo daan even passeport boo laajte and then nga bugg a si noonu nga nelaw because man am na ku ma xam war naa ko su moytu de dina isi turam and is a big man in fact is a big man doxale amul rang bu ndaw rang bu mag te mu ngi lekk xaalisi jàmbur since on the 8th of May more than 16000 dalasi 16000 mu ngi saaf ba léegi. mu every day mi la tey gën a ëllëg mi la ëllëg kenn xamul lan la mooy def and the money is gone te mu saaf te am na genius yu nekk si ronam so yow yow mu nekk on top if you can do that naka nga mun a setee exemple suñu ndaw ñi. suñu amul nombaam bi rek ñun nañ ko kóol. dinaa la jot nombaam bi. it's a ah, big massive passing. ah dinañ ko kóol de ñu ñu ñu ko su caa su nañ ko war lu taxaw comme lu ma wax rek am na loo xam ne eh, duñ ñëw fii ñu yaaxa kenn waaye su ñëwee si Gambie ñu caaxaanu loolu. exactly waaw bëgguñ yi fi tapale bëgguñ yi fi yoo xam ne ngay jaay nit ki ne yow uniforme la. su fekkee yow yaa sol uniforme bi and you said yow da fa nekkal pour citizen yi den yow soo booba sooy def façon tapale boobu soo jàppee ñeneen ñi noo mun a àttee ne ñooñu ñu ngi tapale te ñooñu civilian leen soluñ benn uniforme so sometimes because soo ko calculer si loolu sàcca la ñoo yaa ngi sol suñ national uniforme bi di tapale léegi yaa ngi dem di arrest ñeneen ñi si biti nga ne ñooñu ñu ngi tapale léegi yow ku lay arrest yow they need to arrest because yow yaa ngi tapale. very important yes. so. it was nice although like like amprowal um, and then um teddy wa hata because even though they am poor um laal in society, I want war tamit ne Gambien si tamit citizen of Gambia di leen appeal come the léegi social media more help. everything is going on the wall as well te nit ñi by nañ before new post because tey soo posté a police would def lu uh, ah, nekkul everyone on on some uh, occasion you have ne gis nga nit post ko without the amulo any clear information nekkul ne kooku nga damage Why, as long as mu ngi sol uniform be and that flag is there the bi neka nekk di damage that's number one and ñeneen ñi tamit am na yenn yu bari yu nit di jël di ko vidéo nit gis yenn melokaan yi di ko vidéo di ko def social media bi and then suñ ne fan la jógee ñu ne Gambia la kooku tamit damage yi loo The dëkk neka nga di damage and we are all citizens. ku nekk dafa war a play part of it beneen bi mooy lu ma wax mooy accident because doomi aadama ak accident ñoo dëkka waaye lu ma wax Gambien si rek mooy ñu mun a seetaan li whatever soo fekkee accident ñaanuñ ko yàlla fu mu nekk bala ngaa jël sa time di video and just to put that in the social media trial nga sutura ñooñu trial nga dimbale ñooñu waaye just doon just because yow yaa fa njëkk si scene bi bugga nga ñëpp xam ne is in your platform dafa dafa doy dafa garaaw right trial nga nga ak loo in the future or elek so ne si that situation di nga bëgg ku because that is very important Legi legi di nga gis yoo xam ne nit ñi ñu ko si social media bi it's not necessary. tey benen bu maa wax mooy tamit benen sëy bu am because Gambian bi I think we need to learn which including me as well tey amna na tamit buñ buñ buñ follow already the followers. they hold also the image of the country. So make loo xam that the people want to talk about it and am nga platform uh, rather come and and and narrate the story in a different way then everybody learn from it right tey gis naa suñ footballer boobu noonu koo xam ne mu ngi taka jaba, ah, di ko wa congratulation the way people are narrated si social media bi is is is is very is is a crazy thing ku nekk ñu bari ñu ko bindaa ah, christian la muslim la ñu sëy ndax war nañoo sëy that is a topic one among ne mun like oh Christian and Muslim na mun a ñoo but like you, you seen that big deal whatever happen and everybody have to write that page and buganini uh the comment on that sometimes i mean nee leen world humanity you know on on somebody big day no what have been a sister platform me eh, di wax ne kii jullit like kii Christian Let's say, is it about money is it about law? and those kind of thing then call then ko war a daw suñ la ooyee da ngaa demaa ñoom respect ñu la war a laajte so yow soo jógee koo fii even though feel like nga ne maybe Gambia they don't live like that waaye yow try because ñu su yóobee lu ndaw lu mu jànga fii la su yàggee Gambia dina dem si kanam police su la waxee loo xam ne leer nga ne lii du si du yoon waxtaana la moom won ko ne loo def du yoon du xuloo you know do hair do saga do wax yéen a yéen ne Then, ne leen try that. ñu Gambia, Gambie mu nice because Gambie mooy in Gambia. whatever the case is suñ boss la ñoo ko moom. honey boy, gis in TikTok honey boy, gis in one person honey boy, gis uniform is totally different honey. i uh, am not yu bari tell you naa now coffee. it's not the momo moo because it's my personal life Why? the reason why my one wax you take put jàngale some of suma. raka yi lay mën a wax sax ñu fa nekk nele foog ne in life danga am pour def yu lu la nit yi gisee naay solu yu rafet mooy tax nga dem ko tey maa ngi nii awma lépp waaye sant yàlla fu ñu taxaw mun naa faa taxaw ah, waaye tey su ma ko started from the hardest time or hardest place or nangu change suma life in another bit tey du ma egsi fu ma fu ma egsi nii am na ñu bari nag suñ ma gisee dina wane waaw xoni lii la am waaye tamit fekk ne dama ko liggéey ba egsi fii te kenn dimbalewul ma you know it's nobody it's only me amul nit ak tubaaba ñëw jox ma lii oo keneen no I work everything I have by myself nobody helps me apart from God ak ñaani waajur so lu tax ma wax some of suma part of my life is pour ma dimbale jigéen bu toog fële di jaay gerte oo di jaay tamaate nekk xale nice nekk sa diggi ndaw nga gis sa moromi nekk fële di jafar jaay ay mees ay yeneen ak yeneen nga ne lu tax man may def li dama ruus tant que sàcculoo jaayuloo sa boppa bul musa ruus su lu ndaw loolu nga jaay ne ebe ngay jaay yaa xam mango ngay jaay jos gumal ba pare dara tam soo ko def foo nga gum ko ba pare soo ko def tam soo ko amee bul dem dimbale ko yaay jàmbur sa yaay yow family comme force ba pare foo munti dem si aduna sa yaay suy tëdd si suuf delluwaatal baak nga tëdd si suuf boobu waaye bul bàyyi sa yaay mu tëdd si suuf nga dem ne dem si hôtel yi di enjoy sa life when sa parents si ñu ngi suffer you will never make it in life so yu bari tey yu ma wax fii tey just pour was ma sisters yu out there ne nga liggéey si office ak dara rek mooy tax nga achieve sa dream ngaa jaay mango nga achieve sa dream so tey I achieve all of my dream masha allah duma tey su fi emoon tey sa origaañi dama wax alhamdulillah so waaye nag starté wut si lu yomb So a little more time. I was gonna pass some of my personal stuff, just somebody learn from it. So I why didn't get